Euh, ginnaaw bu loolu passé liñ deen sàmb wax ci xale bi ni mu duggee ci kër gi ak ni mu fi nekke woon man ci li nga xam ne nii jote na ko ak pap ba lii am ndax dégg naa turu di warse nañu bu yàgg tàggoo nañu bu yàgg wante tàggoo wuñu bu yàgg bi ñu tàggoo ak léegi ci weer kese lay tooto bi nga xamee ne tàggoo nañu ba pare mu dem ci quartier bu ñuy wax ngànjool mu luyee fa néegam jël xale yi yóbbu leen foofu ngoon ku nekk xale yi ñëw fi jooy wax seen papa wala suba ñu ñëw jooy wax seen papa seen papa jël ndékki jox leen jël la mu amoon jox leen kon ki wax ne pap daawul joxe dépasse damaa jëlale pap waaye mbokki pap ak papaay pap sax dañ doon joxe dépasse mën nañu yor xale bi beneen bi ci topp nit ki bu fekkee ne bàyyi nga ko ngeen tàggoo ba pare vidéo yi lan la vidéo yaa ngi nii tey bu fekkee bëgg ngeen ñu envoyé leen ko ñu envoyé leen ko waaye moom li tax mu tàggoo ak moom sax foofu laay njëkki ndax portable am la teg fii fekk booba am na lu muy ojo am di lu muy def ba paap mu fàtte fi portable am jóg paap for portable bi mu foree portable am mu daal di dem jëlub jakarta dem ba ginnaaw euh, xombal ngay mu toog di xool li nekk ci vidéo yi ak ñi mu doon wootaanteel guddi ak photo yi mu doon photo dara baaxu ci mu téye ko ba guddi mu jóg ne ko sa portable bi nga doon seet mi ngi nii gis naa ko maa ko foroon waaye xoolal génneel ko li nga xam ne moo di vidéo yi mu doon def di photo boppam ci photo yoo xam ne dara rafetu ci mu di ko ko won di ko ko won di ko ko ay góor ak yu kenn xamut tey ci kaw ñoo xam ne vocal yooyu jékku sax ci digganteem ak paam paam ni moom jomb na ko wax bi nga xamee ne loolu am na mu tëdd ba guddi mu wan ko ko wan ko audio yi wan ko vidéo yi ne ko lii day nit ku baax du ko def te am nañu ay doom yoo xam ne màgg nañu léegi si tey mu daal di ne ko nag ma jéggal ñu waxtaan ba arrangé loolu ba mu sedd jógatib bu portable bi mu jóg daw dem wuy ji jóg daw dem wuy ji ba paat ne ko yow li nga nekkoon kon bàyyi woo ko mu delluwaat ci vidéo yooyu wëlbatikuwaat nag paat ñëw fekk ko gis loo xam ne man day ñëw na sama kër xam naa tuur nag ku koy ragal ragal wax da ngay seet sa diggante ak sa turaayu bàmmeel xam ne lii waxuñu la ko nga ragal ko waaye man moo ñëw sama kër yëkkati benn doomam boo xam ne nii da koo jox na bu sàmb mu nangu ji ko ca Touba Mbacke ñëw ñëw di ko jox ma ne ko doom bu ñu jox sama rak ñu bàyyi wuñu ko fa ñu ñëwee jox ndeyam nangu ko bu ñu ñëwee di ma ko jox man du ma ko jël ndax ñoo bokk benn weer ba pare du ma yor doomu aada mu wëlbatikuwaat ne da yut ndeer sàmb ndeer sàmb ne ko man kii duma ko yor xam naa ni ñu mel na boo ko yoroon mu jël ko mënumaa yor ko na bu jël ba pare mu wëlbatiku jël beneen xale bu góor bi ñu tudde papaam muy Pape Malick Samb mu dem yóbbu ko ci la joxe ko ba kooku ne moom dina ko yóbbu ca daara ja tey la ko bëgg a yóbbu ca daara ja kon nun kii topp nañu ko ak lu baax ba pare paan na wax yóbbu na vidéo yi ca commissaire ba yóbbu na li mu photo ca commissaire ba ba muy ñetti yoon wax dëgg yàlla ñu xamal ko ne ko yow Pape bu fi ñëwatee sax ñu tëj la kon Pape dafa amatul fu mu kalaame bu aman fu mu kalaame wala yëf yi ñu am ko ko àtte ci yoon kon yëf yi du egsi fii dañoo war a bàyyi lawal nag musiba mbaa ba kumba ba mu indi ak nas nasal yëf yi nii la demee lu leen ci waaye wax dégg na hmm. li rey paap ñun waxaguñ ko ndax eggaguñ ci hmm. ñu ngi toll ci faatu na hmm. bare na lu nu xam na ndax bu fekkoon ne nëgë ni am na nun lu nu xam waaye comme dañoo dem ba egg ci autopsie te autopsie dina génne leeral lépp nan xaaragun autopsie bu nu wax lu ko rey la mu naan la mu la ñu ko def eggaguñu ca ci la ñu jëm te ñoo ngi ci kon loolu bu fekkee bëgg nañoo xam dëgg am na lu génn am na lu nu xam leneen dina génn te bu génnee foofa la ñuy waxee na nag ne la ko rey waaye li sabab daal tas gi ci weer la toll li tax mu tas ay vidéo la ba mu tasee it bàyyiwu ko mi ngi jël ay vidéo di ko envoyé vidéo yaa ngi nii nu ne ko jëla sa piis bi nga dagg ko sànni ko ca àll ba wante bu yebalee xale yi wax leen ne leen dem leen ci seen papa mu ñëw jox ko ndékki jox leen la mu am ñu ñëw ne xale yi lu seen papa wax ñu ne xanaa jooy mu ne <laughs> eh, daa mënta muñ li muy loolu vidéo ak vidéo yaa ngi bu ñu bëggee xam bëgg a gis vidéo yaa ngi ni nit boo tàggoo ak moom danga koy bàyyi xool nag dafa yëmut xel dafa yëmut waaye bu nuru woon nun ñii nga xam ne ay jigéen doo nga lanu bu nuru kon du dem sax foofa ndax man lu ma suur ndox sax du ma ko suuree duutuma ko naan waxantuma laa nit nun ñii du nu ay doxandéem nag du ne locataire juróom ñaari paab yëpp Pape Samb nee na xamul sant mu ta xam sant ndax moom mais moo di locataire ca Casamance ñëw fi nun nag fii la ñu juddoo juróom-ñaari maamam ci Anen maamam baayam mooy chef de quartier Anen maamam ndeyam moom moom jaarga njóobeen moom moom jaarga kon nun xam nañu fu ñu juddoo xam fu ñu yaro moom nag duñu ko wax dara ndax danoo am ak moom i doom na salteel na wax doom no noo leen jur waaye keroog ba mu ñëwee fii ci ëttu Malick Samb bii da ko ne du fi. ndax kii dox ba daje rek wóorut yaayam di am lu muy wax ci moom mu nga àllaaxira nuy jël ne ko la lanu lu ànd ak suñu jaboot nan jël rek teg suñu tànk na nañu nag tey waaju ya demoon dem yey nañu nu ndax nu ngi ni yuuxu nanu yuuxu goo xam ne nii xamuñu fu muy faye waaye lépp bàyyi nañ ko ak borom jàllo jalaaloo